ku ne alalu senegaal duggul ci askanu senegaal ci yërëm askan wi delloo leen lu ñu moom fexe ba ñu gis seen bopp ci nguur gi kooku war nañu indil ay firnde loolu tax coow yi ñuy dégg ci rajo yi man dama ne bëri bugguma ci sowuma ci trop ndax am na loo xam ne buñ ko waxee képp ku am dégg-dégg dina xam li nekk ak li mënta nekk dina am lu am ak lu mun lu mun lu amut parce que da ngay dégg ñu toog ne contrat pétrolier yi contrat gazier yi dañ ci luubal Sénégal jot na ay milliards yi milliards dama leen koy tënkal ci baat bu gàtt naa ci ñëwaat bu ma demee ndar incha allah ci kanamu étudiants yi nga xam ne ñoom vraiment euh, ñu crier lañu mën a laajte. maa ngi leen dinañu préparer seen question dinaa ci tontu incha allah waaye dama ne pétrole bi dafa mel ni nga ne rek sama toolu maam a ngi nii wala sama dëkku maam a ngi nii wala Sénégal a ngi nii am na koo foo xam ne suul nañ fa samay maam suuloon nañ fa euh, ngalam mais xamuñu fan la nit ki mun na wër ku wër di nga gis séeréer yi ak avant dañ daan jël ngalam gi suuraale ko seen kii comme <laughs> ceddo lañu <laughs> ku wër rek. doo moytul di gas di romb Sénégal di gas boo moytul daa dajeeg ngalam waaye ak nga nar a yàgg di wër mun nga nekk ay téeméeri at di wër loolu mooy pétrole bi pétrole bi kenn mënu la ne fii am na pétrole de manière sûre mënu nekk moo tax depuis 2000 depuis Sénégal nekk Sénégal depuis 1935 ñoo ngi wër ci tubaab yi ba léegi ñoo ngi wër pétrole ci Sénégal mais comme xamuñu fu mu nekk amaana am na amaana amul te ki koy wër alal bu bari la ciy def kooku est-ce que yenu na maanaa nga ne daf lay fay pour ñu wër jeex lu yenu maanaa kay nga ne ko jox naa la nga wër boo gisee ñu séddoo boo gisul nga dem sa yoon waaye man comme d'accord nga pour wër duma ci def sama dërëm foofu la ñu toll ak compagnie pétrolière yi ci gàttal maanaam xel nanguwul que ñoom dinañu joxe ay milliards pour wër pétrole boo xam ne óor na leen seeni moroom jiitu nañ leen fi wër gis ñu dara dem ñeneen jiitu leen fi wër dellu dem ba fa ñu trouvé pétrole bi am na ñu fa newoon delloo permis bi dem seen yoon loolu est-ce que xel nangu na bala ngay gis nga nga joxe ay milliards xel mënu ko nangu xanaa kay yow dangay ngay ne saawaay wëral dénk naa la ko am na nag ay frais yu ndaw yu ngay fay frais yooyu du dara loué nañ la surface bi yaa ngi fay par année 3000 xaw ma ñaata par kilomètre carré di nga fay bonus di nga jënd ci Petrosen ay données loolu la loolu du alal bu bëri loo tax sax Petrosen ba tey c'est pas une société très florissante waaye bis boo trouvé nag ci charte yii ak yii ak yii la ñuy nar seddoo séddoo affaire bi gannaaw yow ba nga defee gannaaw yow mi nga trouvé yow yaay gas teen wi yow yaay tabax teen wi yaay def machine yuy manque pétrole bi yow yaay def machine yi koy segg ak yooyu yëpp après nag ñu doog a séddoo loolu xanaa loolu moo gën a dal xel gën yenu maanaa que koo xam ne day ñëw jeex xamul lu lu muy wër dina ko trouver ñu naan joxe na fa ay milliards jafe na lii luubal na fii yooyu ay waxi kese la waaye naa ci dellu si yu gën a yaatu parce que bu fekkee ni nit ñi dañuy woo ci xuloo kese yow nga yor caq nit ñi taxaw kii fi mu toll nii gars yi bu ñu ñëwoon avant en avant moom dañ koy rawale dem parce que soxlawul ñuy muy xeex am na waxtu xeex ak waxtu wax expliquer ñun tey waaw waaw <laughs> voilà mais fi mu toll ñii ñun ci liggéey la ñu comme béykat yu nekk ci kii bi noonu la président mel noonu la gouvernement bi mel ci liggéey la ñu nekk. loo tax dañ daan wax vacances gouvernementales gars yi dem France Senghor moom version ngeen ko daan dégg Normandie. un mois ferme dina ko jël def du ko sax kafe yeneen gars yi tamit dañ daan jël seeni avion dem vacances bu ñu ñëwaatee gars yi teeru leen aéroport ñu fi jiitu woon du ma tudd seen tur waaye ñun vacances ci nawet dañuy ñëw ci koñ yi suñu koñ yi wàccaat dajeek askan wi waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom nemmeeku leen loolu moo ñu fi indi woon tey di leen gërëm